هذا رك مو كي ودي تكو كي ودي كنك تخا أدينا دال دي نيو نكو الله أسكي أو مقال أمس دائما ومق صدقت بالفيد منك مز أتيت ولم ينكر لفيدك عندي دهر خير سق مونكو اي كاس نجي نيو خمنه دا ابراهيم koy jël di koy nandal góor yàlla yi te nit ku feebar ku ne bu yeccee ci yow ba nga jox ko ko ba mu naan kerek dafay wér waaye dana mel ni ku màndi fekk màndi hut dafa màndi ci yàlla fa yakunu shaaribuha sukuraane lam yafiq dal di nag ne ko man sa sadaqtu bil fayda man dëggal naa faydu bi man seytaani dëggal naa faydu bi sa sadaqtu bil faydi minka mus ataytu su fekkoon daf ko wax mu atayta kon da nga koy firee ne mooy dëggal naa ko dëppi faydu bi ñëw ci yow waaye daf ne ko mus ataytu mooy dëppi man ma ñëw ci yow walam yunkir li faydik indi dahri xayri suqi te faydu bi ci yow amul kenn ku koy weddi kurut koo xam ne ku na ma khadi la kon man dëggal nako ko man cheykhaani dal di nak nako wa anta aslun li dawxati lmuridi nadda wa min nadal asli tulfa kasati lwaraq نكو بحر المياه كفى منه الشراب ومن بحر المعارف لا يكفي سوى خرق غناو بموكو دغالي نكو يو شيخ ابراهيم يو ياي غرب مانام موي غرب يو غاندي يو ييغا خامني بو نلين سامبي سين بانخاس دا فاي ييغ فوني موي بيتي مو خامني دك بييب مان نين فاي نيك نكو يو ياي غرب غوغو mu ne ko garab googu nag liñ koy xamee mooy toujours boo demee ci ron garab ga dafay fees dell ak xob mooy Cheikh Ibrahim garab gi yaatu na meññ na neex na bari na xob te xob yi mooy taalibe yi taalibe yi ñoom ñooy lekk meññet mi te ñoom it ñoom ñoo ci jari mais nag bi mu paree moom it tamit cheikhaani ku nekk xam na ne Cheikh Ibrahim doo ko bind leetar mukk te dolliwul la ko maanaam dina la ko jox te bu la koy jox daf ciy dolli dalay delloo leetar bi te bu la koy delloo it daf ciy dolli mu jox koon leetar boo xam ne moom it si juróom-ñaari bayt lay toll ndax sayxaane ba mu ko joxoon juróom-benn la Cheikh Ibrahima Niass ñëw na jox ko boo xam ne juróom-ñaar la ko yokkal na ko ci benn mais ci même xaafiya la ko jox waaye ba pare xitna nag jox ko ko ci même baxaru wax ko ci ne ko maa ngi lay seedeel ne yow ku yegg ci yàlla nga maa ngi lay seedeel ne yow ku bëgg faydu nga waaye itamit maa ngi lay seedeel it nag ne yow ku bëgg borom faydu nga te mooy Cheikh Ibrahima Niass rahimahullah Cheikh Ibrahim yemut foofu rek bokk na ci li mu def pour tasaare fay bokk na ci li mu def pour tasaare tariqa tijaan bokk na ci li mu def pour tasaare li nga xam ne nii moom mooy bi mooy ne yegg ci pay bu nekk alawtul bihaara saaxiraatin wa inna nii alawtul xuraa wal mutna balhal jibaala arumu ridaal baari li nasrati diinihi wa kawe naa ndendaakoon yépp waaye kawe naa dëkk yépp it nag kawe naa ndox yépp mais dara taxut uti uma alal yóbbu uma alal uti uma wér-gi-yaram duuma it docteur buy faji waaye dama koo defi ngir dama ko mais dama ko defit ngir tasaare li nga xam ne nii moom mooy faydu bi dama ko def ngir tassar li nga xamne mom moy diina l'islam bi mais dama ko def ngir wan ndaw ñi tamit ne wan ndaw ñi i tamit ne mbir yi duhut neraw mo koy doxal moy ma wan len misal pour ñu xamne dafa am l'islam nu muy doxé am nu tariqati doxé faydu bi am nuñ koy doxalé kon ci lolu ma wax leen la mu tontoon cheyxaane yi faj fa jutta sidqan wa bil mawlal karimi sidq ne ko ñëw nga indi nga dëgg wax nga dëgg nag ñëw nga indi nga dëgg wax nga dëgg te dëggal nga ma hit nag waaye ci biir loolu ci la ko Baay Ñas tuddee sayxaani waaye tuddutoon sayxaani ci la ko tuddee sayxaani mais ci tasaare boobu ci la demee ba fu mel ni saara liyoon ila zarali yoona wa jitu ankara wa ankara fi hazihi ma ankara maa ngi jëm saral yoon de yegsi naa ankara waaye ankara nag ci waxtu bii may wax ak yéen ñoom wetti uñu wa ankara fi hazihi ma ankara mu utilise foofu ci wàllu balaaxa lu ñuy wax jinaasa jinaasa bi nekk jinaasa taam moom la utilise foofu mooy lan mooy ankara boole na ñaari ankara ankara bi dëkk la mais ankara bi luy weddi la وأنكر في هذه ما أنكره boo jàngee balaaxa di nga xam ne yegg si na si jinaasa boo xam ne jinaasa taam la kon albaliq la woon mais ci biir loolu nag mu ciy dem ci même xasiira bi boo demee ba ca biir am na fu muy waxee ne maa ngi leen di daawa woo leen ci yàlla ndax bul fàtte ne xakim la woon Cheikh Ibrahim xakim la daa la ba pare suruutu daa yi yépp dafa nekkoon ci moom daa yi mooy koo xam ne dafa bokk ci suruutul yi mooy même yére yi ngay sol sax dafa war a am nu mel ci rafet Cheikh Ibrahim ku nekk xam na nu mu doon mel ci colin ci loolu mu wan leen bi mu yegsee li mu leen njëkk defal mooy daf leen wax kuy yàlla kan mooy yàlla lu la leen njëkk wax bi mu leen waxee ku yàlla ba ñëpp d'accord ne ah kon yàlla la mu wax len luy aljana ba ñëpp d'accord ne ah kon aljana ni la mel ñëpp xemem ko mu jàllat bi ko wax len luy safara ba ñëpp ragal ko mu doog ñëw nak wo len ci l'islam xam nga niki boko waxale yàlla ba pare wax ko luy aljana wax ko luy safara pour nga convaincre ko mu ñëw ci l'islam da fay yom ci la dal waxe zakartuhum bi xaaliqil manani رقبتهم أيضا إلى جناني دعوتهم لها من النيران أقول الحق صابت الجنان كل أجاب دعوتي في مخفلي ملوكها والكبرياء الأسفلي فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فتابت النفوس كذلك النساء فالتوحيد هنالك منظور لي والمجيد قايم أي may wan ne mais dañuy jégalu bu baax li ñu bëggoon wax foofu rek mooy bi mu ne zakartuhum bi xaaliqil manaani mooy wax naa leen kuy yàlla d'accord nañ ñoom ñëpp waa ñoom ñëpp d'accord nañ ne kii mooy yàlla raqibtuhum aydan ila jinaani wax naa leen luy aljana ñoom ñëpp d'accord nañ ne aljana nii la mel ñëpp xemem nañ faa dugg daawtuhum laha min an wax naa leen luy safara ba ñoom ñëpp ñu ragal ko بقرنا أقول الحق ثابت الجنان بقرة في بقرة كل الأجابة دعوة في مغفر نيو نيو نيو نيو سما واتبي ملوكها سن والكبرياء سن من يال أسفل جنان دوم ويي فقلت لا إله إلا الله محمد أرسله الإله فقالها الكفار والمجوس والأمراء فتابت النفوس كذلك النساء في التوحيد هنالك المنزور والمجيد كذاك في تأمل حين قلت كلمة التوحيد إذ نطقت أن تخت كل الناس بالشهادة وهم الوافق قبلوا سعادة دلنا بني ba ne صح jigéen ñi sax dañoo ñëw wuyu si imaam Asan rahimahullah nee na keroog bés boobu ñoo tuub dugg ci lislaam mais xam nga lu ko may Cheikh Ibrahim mooy xikmatul daa yi moo ko ko may maanaam am xikma si nooy wootee wax leen yàlla wax leen aljana wax leen safara ba pare doog a ñëw tegal leen luy lislaam ñoom ñëpp ñeenti junnee doomu aadama si même suur si même place ñëpp daal di ñëw dugg ci lislaam Cheikh Ibrahima moomu moom laa lay wax ba léegi si la mu tontoon Cheikh xaalis leetaram ba fa jutta si qawmi mawla karimi sidqi Cheikh Ibrahima moomu nag moom moo indi fayd wala kon faydu moo ñëw ci moom ndax faydu Cheikh Tidiane jiitu woon junj woon na ko bàyyi ñëwagul kon bu bàyyi ñëwee faydu ñëw faydu bi moo ñëw ci Cheikh Cheikh Ibrahima Niass rahimahullah tegee ci ay loxoom mu jël ko di koy tasaare di koy séddale di jox fu nekk jox nga di ba wàllam léegi nag yow miy taalibe boo xamee loolu ba pare lan moy sa taxaway lan mo wara nek nekk sa warteef fan nga wara tek sa tànk nan nga wara mel ko wara top bo amé serigne sëriñ bu mel Cheikh ibrahim Niass rahimahullah est-ce que nu la neex mel la dedet est est-ce que fu la neex dem la dedet est est-ce que lu la neex wax la hit dedet yoy yeb du ci benn du fu la neex dem du lu la neex wax tey du lu la neex nga daal di def loolu mooy li ñu takkee ñun ñëpp ñu ngi si sant yàlla nag di ñaan yàlla defal ñu si tawfiix bu baax kontaan nañu si it lool loolu mooy yegg si fii ci Ngodiba Ngodiba nekk capitalu faydo Cheikh Tidiane ci ndukuman ndax ci gannaaw legui deg na ci benn waxtaan benn mak mune ngodi ba ci la faydu njëkk wacc manam maanaam ki njëkk a xam yàlla ngodiba la joge ci fi nga xamne mom moy tundu ndukuman kon su ak may la go xamne ne mo ñu ko jox waye ñu ngi ko ci sante bu baaxa baax kon daal ni ko gars yi defee woon signalé ñu wàññi nañu waxtu bi jeex na ñoo ngi ciy jéggalu bu baax nañu ko bëggee woon moo doon mu gën a gudd ci ñoom noonu lañ ko bëggee woon waaye nag ndem nii la ko yàlla defee nii la ko soobee jàmm bi it nii la ci àndee ak moom monsieur le maire ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay sant ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla yàlla gën a dëgëral taxawaay bi ñu ngi leen di wax jazakumullahu alxayr wa kullu aamun antum wa nahnu fi alfi xayraatin jazakumullahu alxayr walhamdulilahi rabbil alamin